dal leen ak jamo mbok yi mbir yu doy war yi nga xamne nak ñoo ngi koy tuddu xaaliss bu takko takko bu joge Qatar daal di bir Touba liko waral nekul len nak lu dul ngir ki di Ousmane Sonko daal koy gere wa Touba wala nak lu ni mel mu nekk lu doy war ay revelation yu am am solo ñu daal di leen di ngeen tewlu ko. après dina ñew nak daal si def sunu jangat mu nek lo xamne doyna war lol nak mbir mi nak dafa melni amna lu sirax ak ki nga xam ne moo di Karim Meïssa Wade tamit dafa mel ni daal dina si laxasu ay mbiram mu nekk loo xam ne daal doy na waar nekk actualité. financement yi ñuy wax naan Qatar la jógee et tout ça euh, ñu taxal ci Ousmane Sonko dem sax ba euh, journal boobu nekk euh, bitim réew muy Canard enchaîné ñu ni moom moo wax ne ay financement la yoon da cee waroon jot pour jéem a Euh, convaincre électorat murid bi maanaam ñëw xëy na da leen a ger xëy na wala mu joxe fa xaalis pour ànd ak pour ñu ànd ak moom daal parce que comme foofu day am ay consigne de vote te xëy na xëy na jàpp nañ ni euh, taalibe yi xëy na dinañ euh, déggal sëriñ si xëy na looloo tax ñu wax loolu mais loolu li ci li ci metti mooy li ci doy waar mooy ci porte combat boobu ki njëkk taxaw wax loolu maanaam ki taxaw di dëggal loolu xam nga nee nañ ab journal bi dina ko loolu moo depuis mois de juin la mais lu tax ñu yëkkatiwaat loolu man je pense li tax ñu yëkkatiwaat ko Karim Wade moo tax mais visé wu ñu Sonko de attention te li si gën a grave mooy ki yëkkati mbir moom mbir moom dañ ci sosal Touba euh, ki ko yëkkati biir assemblée nationale ab député la boobu waa Touba ñoo ko fal. vooteel ko seeni carte moom na liir na am nay preuve yow li nga liir bu dee liir na li Canard enchaîné wax mu jëm ci Touba mu xam ko. moom Matar Diop mu yëkëti lool di ko wax loolu vraiment très manam trahison la ko jappé loolu war la envers Touba. parce que wa Touba biñ ko falé faluñu ko pour muy dem assemblée nationale di yëkëti wax ju nga xamante ne ni indiwu ci benn preuve bo xamné ni amna journal bu ci bind bu ko bind takal ci Touba ga mu jógee Touba gi ko fal donc wa Touba dañoo fal seen député député ba wara nek assemblée wax seen wax waxul seen wax difa dem di yëkëti wax joom dañ ci takal Touba muy xaalis bu jógee Qatar te man mbir mi man dama japp ni eh, visé wuñu Ousmane Sonko pour man Karim Wade la ñu visé attention maa ngi gis Karim Missi di ci di ci di ci jubilé def leen très attention pourquoi parce que eh, ma ngi gis ala kan mo bind né wa Qatar répondre nañ di sétal sen bop xam nga lolu mu né di crise diplomatique mais xolal entre Qatar Karim Wade ak Touba Karim Wade bi muy genn ay médias so amna yu Touba lañu waxante woon nag euh, waa Touba waxante ko Qatar parce que dañ ne procureur général bu Qatar moo jógee Qatar ñoo jël si Karim attention donc am na lu ñu signé am lu ñu wax est que du dañ nar a wor loolu moo tax ñu sulli wax ji pour pour bëgg a créer benn crise diplomatique attention def leen tànk yéen ñii nekk fii di yuuxu ko PDS daf leen très ci mbir mi nii waxuma ni loolu la de damay la ma xalaat rek dama ni est loolu la parce que man dama gisul ban intérêt la ñu am ci Sonko mu ñu téyee tëj ko ci kaso bi jiiñ koy affaire yi nga xamante yu bari mi ngi xaar procès nga xam ne lii même bu dee dëgg la sax mënoon nañ xaar ba ca procès ba euh, wala procureur génn wax ci lii ba pare taxaw def benn euh, point de presse wala conférence de presse waxoo mais Matar Diop koo xam yow doo justice doo dara taxaw wax mais mais attends même sos yi ñu fi daan sosal Alioune Sall sosal ko fi ay maamu yàlla gars yi dañ ko doon boole ay papier mais nga taxaw sos sos yu mag yi nga xam génn tant que député génn dañuy bëgg ñu ko ponse quoi ñu gëm ko mais nañu arrêté. waaw Mohamed Ndiaye non loolu la li ma bëgg wax foof euh, li ma bëgg wax ni euh, Qatar bu amee bu bëgg a financé bu pétrole Karim Wade mu ngi foofu te xëy na ñoom ñoo ñu ëpp pétrole foofu te am na lobby yuy wax naan comme par exemple yu mel ni américain yi. ah euh, comme Arabie Saoudite am na petrole yi muy jënd daf ko ci stockam jaay ko américain yi américain yi defaat ko seen stock mu mel ne foofu dafa am benn business bu kawe loolu sax du mën a bañ a nekk débat mais euh, li wetu wóor mooy article bi biñ ko indee dañoo ciblé ñaar te man damaa gis ne analyste Sénégal yëpp ils sont passés dañuy ñëw di wax

te pour man li ma jàpp mooy que ni. a ngi condition yi créé wu ba nga xam ne dina pousse opposition bi ñu ne élection du am léegi parce que ñoom ñoo teel a wax ne Macky Sall day pousse élection yi mais kon ban condition ak nu mu koy taxawee nan la koy defee loolu tam ma ne mënuloo ne da ngay ut réew mënuloo ne da bëgg a nekk jiitu réew wala da ngay dem partie boo xam ne da bëgg a gagné réew muy yomb. xam-xam bi yomb du am lenn loo xamante ni par exemple ci day toll fële xalaat lii xew lii bëgg mais lool dafa yomb réew dafa weesu foofu réew li koy yor dafay dem ba au delà de ça moo tax ñuy yëkkati neuf milliards bu ne. ko jox Macky Sall ko li caisse noire na yuy xew ci réew mi jarul ñu la ciy laaj benn compte bépp bu taxaw ngir kaaraange réew mi wala gën ci réew mi sa l'intérêt suprême réew mi jël ko. tibb ci nga def li war te duñ la laaj benn compte voilà donc bu ñu demee ba toll fii ba Sénégal ku jóg te day toll fële analyser nii lay demee keneen tollu keneen tollu ça veut dire que xanaa ñun yoruñu réew xanaa ñun suñu réew amul ay secret xam nga réew moo xam ne Afrique fépp coup d'état mos na fa mu rëcc ba heure yi te Ousmane Sonko ni mu rëccee ni mu jekkoo woon Macky Sall mos nañ koo jekkoo Senghor mos nañ koo jekkoo Abdou Diouf réew mi tëkkul boyul demul fen dañ ko toog waxtaanee ko foofu nag li may junj mooy bu fekkee Ousmane Sonko ak Macky Sall dañuy toog ji waxtaan te élection mën a am te lima ma yaakaar sax man loolu la donc condition yi ñu nekk du condition pour def election. waaw ngeen baal ma nag sama xalaat laa wax mën am mën naa mais bu fekkee tok waxtan dafa am état profond dafa gis ne ñi fa ne ñi téye réew dañ gis ne il faw tok am kon nañ pousse li bu condition yi am nañ def ni képp ku jog daan da ngay ki attaquer Macky Sall wala da ngay attaquer Ousmane Sonko tu n'as rien compris xamoo li xew ci réew man daal bëgg na maa ngi sàkku daal nañ waat capitaine Dieng exactement Mohamed Ndiaye loolu laa bëgg a wax dama bëgg wax ne réew mi fu mu toll nii foofu la nekk foofu la toll léegi nag képp koo xam ne moo ci woon gis-gis damay invité ñëpp wala invité journaliste yi nañu indiwaat capitaine Dièye ci plateau yi mu wax parce que nag gis nga nit loo àndul àndul ak moom ah li xam-xamam màcc li mu gën a xam que yow jëfandikoo ko moo tax man su ma nekkoon ci Pastef bokk ci Ousmane Sonko genre yooyu dama leen di teel a récupérer xam ne man mi économie ci fisc laa xam damay jëli ku xam pétrole jëli ku xam sécurité jëli ku xam loi constituer équipe boo xam ne béton lay doon dañ may wax lépp lu xew ma am gis-gis bu leer nga xam ne couloir yi may ubbil nii dinaa ko mën a donc de la même manière suñu journaliste yi Sénégal tant que taxawuñu taxawu taxawaay bi ñu war a taxaw ñun dinañuy continuer di tâtonner mais actuellement réew mi ñi ko yor di doxal Ni ñi organiser élection bi c'est pour man pour man la wax de c'est loin d'être Macky Sall nous avons affaire avec l'état profond na gaa yi ubbi seen ñu taxaw ñu xol té nak lan la capitaine Dieye waxoon Mohamed Ndiaye Qatar yaakaar nga ne Qatar dina ñëw di financer ay 20 millions pour pétrole du Sénégal té Qatar ëpp ñu pétrole fouf, ëpp ñu gaz fouf lolu ban sens la ban sens la lolu di am même Qatar bu ko naree def Karim Wade mi nga xam ne conseil numéro un buur wala du jaar ci Karim Wade donc pourquoi ñu bàyyi ba léegi di indi article boo xam ne dafa wax te ni mu wax boo xoolee mooy diine bëgg a jaxase diine bi bi dañ koy def ba waxoon le pouvoir temporel le pouvoir spirituel wax ne dafa am diine yi dafa am période boo xam ne li ñu doon joué ci politique jeex na ñom seen lolu jeex na mais dafa am benen forme bu muy ñowé gars bi ko ngagn lu nga xam-xam da fay am fu muy tollu boko mënul xam bo moy moytul nga sikk borom te boko baye mu wax wala nga may ko possibilité mo tax man dama mos wax ne may mun a niveau dafa xawa wacc par rapport ak li capitaine di wax ñu nga sénégalais duñ ci bàyyi xel mais yoyu da fay am solo ñu bàyyi ñi xam ñu wax fi nek ni ñun ñepp ñu ngi tërërëri di tatana mais ben élément lañu wara mëna xam dina fekk Ousmane euh, Ismaïla Madior Fall tuité génnu Cheikh Yérim loolu femme lu garaaw lu muy révélé parce que Ismaïla Madior Fall ku ko xam ci constitution moom ñi téye Sénégal la bokk loi yi doxal Sénégal moom moo koy dafa am benn moment dafa am fu mu taxawee moom kon nañu xool ñan ñooy adversaire Sénégal yi actuellement ñooñu est-ce que li ñuy doxal lu gën ci Sénégal la wala du lu gën ci Sénégal man de foofu laa yóbbu affaire bi bugguma di débattre ci débat yu terre à terre mais bi yéeg niveau nga xam ne borom xam-xam yi nekk ci kër gi fii ñu bëri dinañ génn ñëw tegal ñu affaire yi quoi ñu bàyyi affaire de partisan ñu xool léegi affaire bi leer suñu bopp salaamaaleykum wa rahmatulah.